dal na ak jàmm ñoo lànk ñoo bañ mooy bataaxal bu mag bi nga xamante ne Guy Marius Sagna moom lay wéy di fësal ginnaaw bi ñu ko jàppee yóbbu ko ca camp moom Guy Marius Sagna nekk ab activist maanaam nit koo xamante ne dafay xeex àq ak yelleefu sénégalais yi ñu tegoon ko loxo fii ci dakaar ca giri palais de la République ngir ànd gu mu àndoon ak ay ñoñom doon dox doxu ñaxtu te di doon fësal itam seen ñàkk ànd gi ñu ñàkk ànd ak yokkute gi amoon ci wàllum wàllum courant gi bokk na nag ci tuuma yi nga xamante moom moo tax ñu téye ko fële ca camp pénal muy ne moom daal daf doon jaxase réew mi teg ci doon doxal ab ñaxtu boo xamante ne yoon da koo tere moom Guy Marius Sagna ginnaaw ba ñu ko tegee loxo ba léegi ña ngi ko denc ca camp pénal ci département boo xamante ne ñu ngi ko jagleel képp kuy terroriste ak jihadiste daanaka fi mu toll nii mbir mu ni mel moom moo soxal la waa réew mi yépp moo xam sénégalais lambda bi la moo yoo xamante ni nii ñi ko amal mooy étudiants yi di ay ndongo daara yi nekk ci daara jàngalekat bu mag bi si bisub alxamis ci moom njiitalu kuréelu France Dégage gi ci la waroon a jàkkaarloo ak juge d'inscription bi ngir ñu mën ko déglu ci mbir mi taxoon ñu jàpp ko daanaka jàkkaarloo bi am na lu ëpp waxtu ak genn wàll bu ñu sukkandikoo ci li gën a fës ci liñ koy toppee muy ab bokk gu mu bokk ci doxub ñaxtu boo xamante ne yoon daf ko tere waaye daanaka Guy Marius Sagna tiitul yox-yoxuwul te xàdduwul benn yoon ci xeex bi nga xamante ne mu ngi koy xeex dalee kooko ca prison ba ginnaaw bi ñu xamalee ne war nañu def ab doxu ñaxtu muy kuréelu waa ñoo lànk moom biñ ne suba la doxu ñaxtu bi di am ci la daal di génn daal di indi ab bataaxal di woo sénégalais yépp ngir ñu ànd ci xeex boobu noonu tey xam la ne mbir mi dafa war a continuer ba ñu jox respe képp koo xamante ne sénégalais nga ci biir bataaxal boobu Sagna mi ngi cay wax ne mu ngi jox cant ak ngërëm ci bépp sénégalais bu góor bi bu jigéen bi muy mag di ndaw ak sax moodu-moodu yi nga xamante ne nekkuñ ci réew mi ci wuysu gu ñu wuysu bile mobilisation ak takku gi ñu takku ci xeex li nga xamante ne nii moom Guy Marius Sagna lu ñu tegul fenn la te loo xamante ne dara mënu ko daal di expliquer te xel mënu ko nangu li muy woote kay moom Guy maris Sagna mooy na sénégalais yépp daal bokk ci xeex bi nga xamante ne nii euh, dañu ko teg te mu nekk loo xamante ne nii dafa war a jëriñ askan bi yépp ndax lii ñu bëgg a teg ci kaw askan bi du loo xamante ne lu yoonu la mébétam mooy képp kuy sénégalais nga bokk ci xeex boobu ba nga xamante ne nii li nga xamante ne mooy njëgu électricité maanaam courant bi danañ ko wàññi bu baax a baax wala suñ ko mun mënta wàññi itam duñ ko yokk ci kàddu yooyu ci la jeexalee ab bataaxal bi mu bindoon doon ko adressé di ko jox képp koo xamante ne sénégalais fàttali moom Guy Marius nekk njiitalu kuréelu France dégage moom itam jàppoon nañ ko ci mouvement FRAPP bi nga xamante ne nii daf cee génne ay kàddu yoo xamante ne nii yoon dafa jàpp ne du mbir moo xamante ne mu ñu war a wax la ba taxoon ñu téye ko mu nekk ay kàddu yu mu yëkkati woon tegoon ko ci ndem si yàlla Ousmane Tanor daanaka def na ay fan yu bëri fale ca prison laata ñu koy bàyyi mu génne ginnaaw si bu mu génnee ci la daal di ànd ak ci doxum ñaxtu googu ca ba nga xamante ne moo waraloon ñu téye ko ba tey jii nii ci euh, prison ba Guy qui a réussi son coup, et euh, qui est aujourd'hui euh, donc au, à l'intérieur du palais présidentiel même. Il a été euh, donc attrapé par les par les gardes du palais présidentiel. Les donc rouges. les gardes rouges aujourd'hui, qui également cette manifestation est du à, à donc à, à donc ils disent niet à l'augmentation des prix du, de l'électricité. Donc ils veulent contrecarrer cette mesure prise par le ministre en charge de l'énergie aujourd'hui. Vous voyez donc euh, c'est tellement difficile, même nous les journalistes, de mener notre, notre euh, travail. Ah. Donc, mais Guy qui a réussi son coup aujourd'hui, euh, qui, se trouve présentement à l'intérieur euh, donc du palais présidentiel, il voudrait euh, tout simplement arriver jusqu'au grilles du palais présidentiel. Ah. Voyez même. C'est ce le... qu'ils ont réussi même. Ouais, a semé la police oui. parce qu'il avait annoncé la marche. Ils ont, la développé, une autre tactique. Maintenant, altercation une... avec la presse. Oui, oui, oui. Voyez. À, à, maintenant, entre, police, entre presse, police et la presse. Et la presse. Ce qui n'est pas normal du anormal, tout. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal. Nañ bàyyi nañ bàyyi journaliste yi. Nañ bàyyi journaliste yi. Nañ bàyyi journaliste yi. Nañ journaliste yi ñu liggéey. Nañ bàyyi journaliste yi. Waaye nous allons. Waaw. mais nous disons non frère ou bien non non kii manifestant la moom la ñuy jàpp ni du ko dugal ci oto bi